ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi balu ñépp xaq tey bal ñépp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu baal tey ñu fa yéene waxtaan ak yéen ci tem boo xam ne tem la boo xam ne laal na ci diine waaye laal na ci jamono ndax mbir mañ bëgg a waxtaane moo ko waral doon mbir moo xam ne bala ñuy doxal suñu diine muy jag wala ñuy doxal suñu jamono muy jag faw loola jag muy lan muy wàllu taw ndax ku wax jaamu yàlla wala liggéey wax kàttan goo ko defee te ki amul lum lekk amul lu mu naan néewaan na lool mu am kàttan gu mu jaamoo yàlla walla gu mu liggéeyee te dañuy gis ne ren am na lu ñu nemmeeku loo xam ne néew ma mus musul am waaye kon géej na muy nawet boo xam ne dem nañ ba ci weeru ut te tawagul taw yu am solo loola comme ni ko yenn boroom xam-xam waxe woon ba ne bu fekkee mas naa am itam ndaw ñi fàttewu ko waaye kon ca jamono yi mag ña lay doon kon mel na ne daal lu gëj a am la léegi nag ñu wara càmbar yu mel noonu bu amee ban jàngat lañ ciy def ak lan lañuy ñuy jort ne moo koy waral ak luy doon saafara si ci alquran ak sunna xam nga ne baatu taw bu ko alquran di wax day jëfandikoo baatu xays comme lu mel ni lim ne kamathali xaysin ajabal kuffaara nabaatuhu summa yahiiju fataraahu musfarra nga xam ne saa yu ne xays rek moom yàlla subhaanahu wa taala man ca jublu ndox mi nga xam ne mooy bàyyikoo ci asamaan daldi dal ci suuf saxal gàncax ñu man koo jëfandikoo bu ne xays loolu la ci jublu waaye saa yu ne mator boobaa tiit jot na jaaxle jot na ndax mbugal la cay jublu mu ngi mel ni bu ñuy nettali mbugal mam tegoon nitu yonente yàlla luut ya doon def góor jigéen bam ne am amtarna alayhim xijaaratan min sijjilin manduudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min alzalimina bi baid kon fa amtarna googu yàlla jëfandikoo jubluwu ci ndox muy wàcc waaye ma ci jublu nitu yeneent yàlla luut ya bañ doon def mbiru góor jigéen yonente yàlla luut waara waara waar ba tàyyi ba sonn ñu tew bàyyi dëgër bopp bañ demee ba mbir ma di jéggi dayoo nar a jéggi dayoo yàlla dafa yebal ci ñoom xeeri safara muy wàcc di bàyyikoo ci asamaan kum dal danaan ràng ci kaangu bopp ba jaar ca dënn ba jaar ca biir ba génne ca suuf ga kooka faatu faatu wu metti kon ba koy yàlla nettali matar la jëfandikoo moo tax ñu ne sax bu ñu demee ba taw tëgga tembe ba taw taga tembe taw a ñëw bu ñuy ñaan waruñoo jëfandikoo baatu allahumma amtir naa mais li gën mooy allahumma aghis naa allahumma aghis naa moom lañ war jëfandikoo waaye waruñoo jëfandikoo allahumma am naa ndax boo nee aris naa rek ghays day dugg te xaysu mi ngi jóge ci axaasa yuriisu xaysa axaasa yariisu xaysa muy xettal ak sauvetage waaye boo nee matar rekk amtir na mën naa doon mbugal kon li ma soxla woon mooy taw mooy xettal ci bekkoor xettal ci xiif xettal ci ñàkk xettal itam ci jur gu maral mu mel ne nag ana lan moo koy téye ñaare bokk na ci la koy téye xeet wi ñàkk tënku ca la ñuy yàlla subhaanahu wa taala tëraloon yonent bi tëralal ñu ko alquran leeralal ñu ko moo tax saa yu ne ñi ngi naan kañ lay taw kañ lay taw nu ñuy def ba am ndox mu mel ne ba ñuy wax kañ lay taw ak nu ñuy def ba am ndox yàllaa ngi ñuy tontu ci làmmiñu alquran naan ñu kañ ngeen di jub kañ ngeen di jub yéen a ngi wax taw bi kañ lay ñëw waaye yéen a ko téye li ngeen ko téye mooy na ngeen jub rek mooy lu mel ni kilim naan wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum ma an gadaqa yàlla subhaanahu wa taala nee na waay waaye bu ngeen bëggee taw yomb na li koy téye moom ngeen di bàyyi li koy téye du dara lu dul ak jubadi kon bàyyi leen jubadi te ngeen jub rek moo tax ma ne bu ñu naan kañ lay taw yàlla naan kañ ngeen di jub lu jar a bàyyi xel ne walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamawati wal ardi walakin kaddabu yàlla subhanahu wa taala nee na bu fekkoon boole ngeen ñaar yi muy imaan ak taqwa kon ma ubbil leen asamaan yi taw bi wàcc gàncax gi sax jur gi daal di commencé suur doomu aadama yi seen xel dal nee na loolu ñaar yi rek muy imaan gëm yàlla taqwa muy ragal yàlla te leen mbokk yi imaan mooy source de motivation mooy carte d'identité jullit carte d'identité jullit mooy imaan mais taqwa mooy jom ji ndax ak taqwa ni nga koy taarife ni nga koy définire mooy ittibaaul awaamiri bu nawaahi taqwa mooy tënku ci ndigal yi di ko def daw tere yi di ko bàyyi lii mooy taqwa képp ku sax ci jëfandigal bàyyi tere rek kooku am na taqwa muy ragal yàlla waaye képp koo xam ne sàggane na ndigal yi du ci jëfe dara yomba ba defi tere kooku amul taqwa moo tax yàlla nee na bu ngeen bëggee taw wàcc na ngeen sax ci ñaar yooyu mu mel ne amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam toogoon nañ ba mu yàgg benn at ñu xaw a maral taw bi tëw a ñëw rek ñu xaar-xaar taw bi taw a ñëw yenent yàlla Muusa laaj suñ borom ne ko naka pexe taw bi de të naa ñëw te jaam ñi jaaxle nañ lu ci pexe sunu borom ne ko dajaleel mbokk yi dajaleel ñi nga xam ne ñoo la gëm ñu def julli baawu naan keroog la yonent yàlla Muusa dajale mbokk ya ñu daal daje julli jullik baawu naan ñaan di séentu taw wàcc waaye taxul dara wàcc taxul dara wàcc yonent yàlla Moussa gën a jaaxle laajaat suñu borom ne ko yow day yaa ñu waxoon nañu julli julli baawu naan te julli nañ ko waaye taw bi ñëwul kon naka pexe mu ne waaw li tax taw bi ñëwul mooy bi ngeen di ñaan amoon na ku nekk ci seen biir koo xam ne rambaaj la looloo tax seen ñaan ga nanguwuma ko ndeka kon nit ñi dinañ ñaan lañ doon ñaan duñ ko gis ñu yaakaar ne yàlla moo respecté wul lam dige woon fekk yàllaa ngi respecté lam dige woon waaye melokaan yi nit war a mel soog a ñaan ñun moom lañ moom lañ deful te melokaan yi mooy tuub tuub goo xam ne day ànd ak charte yi ñun nag yomb nañoo tuub yomb nañoo wax astaghfirullah léeg-léeg sax duñu wax astaghfirullah mais astaghfirullah na ma yàlla baal na ma yàlla jéggal mais est-ce que condition tuub ya dana daje condition tuub ñett la woon ñett xanaa xamoo ne bala ngay ñaan yàlla jéggulul bala ngay ñaan taw jéggulul ndax ginnaaw bàkkaar mooy téye taw bi mais nañ jéggulu nañ jéggulu ndax comme ni ma ko waxee woon borom waañ bi togg ba mu jekk soo bëggee mu yàkkal la waaye waaye danga koy indil ndab lu set waaye soo ko indilee ndab lu taq du la yàkkal danaa la demal raxas sa bool bi ba noppi ma soog la yàkkal ginnaaw borom waañ wi moo am fulla jooju nag rawatina nag boroom jaam ñi kon yàlla bala mu ñuy wàcceel taw nañu raxas ndab yi muy suñu ndabu xol yi tuub tooñaange yi dox suñu digg ak suñu borom jéggulonte tooñaange yi dox suñu diggante ak suñu moroom te muy tuub gu dëggu tuub nag ñi jàng al axdar yi rek jàng nañ charte ya mooy la nga jàngoon ñu ne la annadamu ala ma faata wa niyatu an laa yacuuda ila danbin fi ma baqiya min cumurih wa an yatruka almaasiyata fi saacatiha in kaana mutalabisan biha waaw bu njëkk bi mooy an nadamu ala ma faata da ngay réccu bàkkaar bi nga def wa niyatu an laa yacuuda ila danbin fi ma baqiya min cumurihi mooy nga yéene na li des sag dund doo defaat benn bàkkaar wa an yatruka al maasiyata fi mu in kaana san biha mooy jamono bi ngay tuub ba mu la fekk ci mooy kon di ko def ba noppi di tuubaale mu ngi mel ni nga yor góom nit joggi la nga ne ko eh yow yaa ngi may gaañ mu naan la baal ma ba noppi teggiwul tànkam xam nga kooku day yabaate moo tax daanaka bu naan la baal ma itam dalay reeloo loolu mën na jur sax aw ay mën na jur xeex kon bala mu lay baalu na teggi tànk bi ba noppi lam lay mettital dañ mu soog laa baalu kon bàkkaar bi na ko bàyyi moo tax bu ma koy tënk dama naan an nadamu ala faata mooy metti na ma li ma defoon ci bàkkaar metti na ma wan niyatu an laa yahuda ila zanbin fi ma baqiya min mooy dutul amati dutul amati waa an yatruka al maasiyata fi bàyyi naa ko kon ñetti charte yi booy tuub te daje wuñ sa tuub moom yaa koy tuddi tuub rek waaye répondrul ci critère tuub yi chart tuub yi daje wu ci kon bu ci njëkk mooy euh, metti na ma metti na ma ñaareel bi mooy bàyyi naa ko ñetteel bi mooy duutul am képp kuy tuub nag te ñetti nekkul ci yow la ngay def yaa koy tuddee tuub waaye du tuub metti na ma bàyyi naa ko duutul am waaye ñun nag dañuy daje ci bërëb naan dañoo bëgg mu taw julli julli baaw naan wàcce kaamil jéggulonte sàkk sarax te ci jotaay bi ñu toog ñi ngi yéenentew ay suñ xol yi rafetul yéenente wuñ jàmm kenn ku ne yaa ngi bëgg li sa moroom am bu dee place bu baax la muy yàqu kenn ku ne yaa ngi bëgg sa morom bu amee wér wér di bu manee mën a di kenn ku ne di yàq sa deru moroom pour du tekki dara yow rek yaay tekki dara koo mere bëgg ñëpp mere ko ñam joteelul dara sax merewaale ko société boobu bu ñuy tuub loolooy tax ñuy dajale daje ci jataay yi di wàcc kaamil di sàkk sarax di jéggaloonte te du tax taw bi ñëw ndax lan dafa am yu sew muy iñaanante ga soxorante ga yéenante ay ga loolu munta ànd ak tuub goo xam ne yàlla da koy nangu moo tax may la ñett yi bu dajewul metti na ma bàyyi naa ko duutul am ak jara jar bàyyi xel ak jar bàyyi xel moo tax euh, keroog bi nga xam ne yonent yàlla Moussa laaj na suñ borom ne ko lan moo tax ñu daje def jullit baaw naan te tawoo yàlla dana ko dafa am ku nekk ci biir seen biir koo xam ne rambaaj la mooy day jaxase nit ñi diggante bu neex rek lay bañ fu mu gisee ñaar ñu neexoo moo xam ay mag ak rakk lañ moo xam ndey ak baay la moo xam nit ak soxnaam la wala boroom këram wala ay xarit la dana wax ca diggante ba loo xam ne ñoom ñaar ku ko ci dégg di nga bàyyi sa moroom bu dee jëkkër ak jabar sëy ba dana tas bu dee nit ak xaritam xaritooga yàqu bu dee nit ak ndeyam ak baayam wala doomu bàjjanam wala doomu tàntaam mbokk ga yàqu kooku mooy rambaaj yàlla wax yonent yàlla Musaa ne ko duma taw ndax dafa am ku nekk ci biir koo xam ne yéen a ngi julli muy julleendoo ak yéen ngeen di ñaan muy ñaanandoo ak yéen waaye rambaaj la koo tax taw bi ñëwut ya yonent yàlla Moussa wax suñu borom ne ko waaw wax ñu kooku kan la bu ko defee ñun ñu wax ko mu jéggalu ndax taw bi wàcc yàlla ne leen yàlla ne yonent yàlla Moussa du ma ko wax ndax su ma ko waxee nekk rambaaj ni moom taman yàlla sori naag rambaaj seetal loolu yonent yàlla Moussa ne ko naka pexe mu ne pexe bi mooy yéen ñëpp yéen ñëpp da ngeen di daje ngeen tuub su ngeen tuubee moom dana ca dana tuubaale te du ngeen ko weer ñoom yëpp yonent yàlla Moussa woo mbooloo mi ne leen yéen ñëpp na ngeen ñëw ngeen tuub ba ñu tuubee moom rambaaj ba àndaale ca yàlla wàcce taw ba yàlla wàcce na taw ba te wéerul rambaaj bi ndax mënoon na ne diw la te su boobaa day xaw a doy waar moo tax kon nañu jéem a rafetal xool yi bu baax a baax rafetal yéene yi bu baax a baax a baax a baax ngir lan ngir taw gi mën a wàcc ndax ñun kat dañuy jàng alquran mais dunduñ ko te yàlla dana woon waruba qaari in lil qurani wal qur'aani yal'anuhu nee na bëri na kuy jàng alqur'aan waaye alqur'aan nga koy rëbb ndax buy jàng ala laanatullahi ala zalimin yàlla rëbb na tooñkat yi moom moo fa dàq tooñ te fu mu toll naan ala laanatullahi ala zalimin ak ala laanatullahi ala alkaadibin fekk moom du wax dëgg ak ida jaaka al munafiquun moom naafiq la moo tax kon nañ dund alqur'aan dund projet de société bi alqur'aan tëral xoolal tey ñun azaka ji yàlla waxoon ne azaka day am commission buy wër di ko dajale ba waxoon ne innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakini wal aamilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqaabi wal gaarimina wa fi sabilillahi wabna sabili wa fi sabilillahi wabni sabili faridatan min allah kon wal aamiluuna alayha lil fuqaraai wal masakin wal aamilina alayha wal aamilina googu nañ ko bàyyi xel muy azaka dafa war a am commission buy dajale buy daje di ko laaj mais suñ jamono ji kum neex génneel sa azaka num la neexee jox ko ku la neex ana dund alquran te boo koy jox nit itam da ngay bëgg mu tagg la te da ngay xool ki la arrangé nga jox ko ko te da ngaa war a xool critères yi mu wax bu waa ji nekkee faqiir nga jox ko ko bu nekkee miskin nga jox ko ko ba juróom-ñetti xeet yi yàlla tudd mais faaw nga ci xool ku jubóog yow ak ku jubut jubóowut ak yow faaw nga ciy xool ku lay tagg waaw moo taxoon bu ñuy def diagnostic société bi suñu société feebar bi leen dal ci ñett la tënku maa ngi ko doon wax ci benn bind ba naan sirrun najaa faniyatun xaalisatun wa nasduqu gisoo de sirrun najaa faniyatun xaalisatun wa nasduqu fi kulli qawlin wa amal maa rida bil qadari ma ne gisoo ñetti problème yi moom la suñu société bi am muy ban benn bi mooy ñàkk am yéene ju rafet ñàkk am yéene ju rafet maanaam sincérité amatu fi ñaareel bi mooy ñàkk dëggu dëggu yombatul ci suñ jamono bi ñetteel bi mooy naafiq dafee bëri ba noppi ñu bëgg ñu bëgg ne na taw dama ko daan faral di wax ci jotaay yi ñu may waxtaanal ñëpp may leen on est dans une société mensongère hypocrite et ostentatoire waaw ma ne suñu société bi dañoo ñeme wax lu dul dëgg ba noppi mën a njistal mën a naafeq wax lu dul dëgg gi moom nu koy gisee fu ne relation yi dëggootul bokkoo gi dëggootul da ngay gis koo xam ne daan mag diw ñoo bokk ndey